yow caam yaa bon. la ma waxoon. xamoo la xew. te ci def sa toj ba pare dangay dikk ni walax sa kanam di welax le kanam di jaay kanam gu lawet ba mel ni nawet yow nga indi ndaw si ci biir kër gi yàgg ba ngeen bëgg a kompaloo jaay kër gi. ndaw ki jaay kër gi ki jaay kër gi moom nga fi indi ci biir kër gi naa lépp ngeen di ko ci biir kër gi ngir jaay kër gi yàgg ba kompaloo ma. man na defoon naa bu yaramu ba dawul yow sa yaram dina daw ndax mu leen a jël kër gi ngeen jaay ko bàyyi ma ak vieille Ousmane ngeen bëgg koo lekk du demee noonu du demee noonu bu la leeree mu sa jàmm yow ndekki di meex yaa gën a bon ba yaa gën a triant ba yaa dàq sàcc ba. Badiane Badiane yaa may tooñ de. amul yaa may tooñ de dëgg laa la wax. Badiane bul dégg teel rek ne damm na. baax na. ndaw si ngay wax ñëw na ci kër gi. dëgg la indi. xam nga pour lan la woon pour jéem rek taxalaat diggante mook ba comme que dañu amoon problème ba demoon ci ay tribunal ak i police ma woon ndaw si pour mu ñëw baalu ko ak par rapport ak li fi xewoon boole ci ndaw si kër gi la bëgg jënd te yoroon na xaalis bi pour jox ko ba ba moon du téye xaalis bi du ko jël tey du ko jël suba parce que ne du laal xaalis bi waaw bëgg ma koo jox man ko man du ma ko jël du ma ko jël de ma téléphone ma ñëw. dama ne loolu bis bu ñu koy def du man maa koy jël du ba moo koy jël ñun ñëppay toog ñu jël xaalis boobu. xaalis bu mate da ngeen di wootal te téléphone ñu ñëw toog. du ma woo kenn. ñu teg ko ci taabal ji ku am la ngay am. suñuy jaay daal ñëppay toog li daal ba moom bëgguma moom dal ma man. waaw jël xaalis bi fii ñaata million fii ñu naan lekk na kook lekk ko ñu jël caam bu police wala yóbbu tribunal. loolu moom du ma ko def du ma téye xaalis naa leen man am ma ci benn un complexe sama xaalis ko lekk di nga ma ko fay lu leer laa la wax xaw ma danga may waar xaw ma ñuy wax ne déete waaye nga ne dangay takk jabar caam wat seese caam am loo jabar caam loo yaakaar loo takk jabar yow bon yow jàkkaarloog man naan ma ne da ngay takk jabar. da ngaa yor looy takk jabar. ah jabar daal dañ ko yor pour mën koo def. jabar dañ ko dañ koy yor dañ koy mën doog koo def. dañ koy mën sa koo def. waaw ah, yow mënul ci dara ah, mënoo dara. jabar xam nga koo yor yàlla moo ko yor. yàlla lay takk jabar dëgg la la caam jabar yi. takk lu ma de dama sabablu yàlla fekk ma ci. waaw fii daal Sénégal lu fi xew ñu yàlla. dama ni dama ni amul benn borom kër bu mën a taxaw ni ah man maa yor sama jabar wala maa yor sama njaboot yàlla moo ci teg loxo. loolu xam naa gën a ma ko xam. ah gën a ma loo xam. waaye yow da ngaa yor kon xamoo ko. yow da ngaa yor sulu jër guro Ah, yoroo lu yë lu jër xam nga ko bon yow mi yaa bon maa bon yow bi nga déggee ne damay takk jabar nga ne moos caam kaay caam lii maa la ko jàppalee jàppal ci lii ndaxte yow fu ne teg yow yow man yow fu jaar nañ fa yow. ma sama xaas man ma jàppale ko sa takk. waroo ko def. c'est vrai caam man bañ may takk man sama mariage doo ci def. defuma ci dara dafa dégg ma ci dara du jaay ay envoi bu ñu la jël nga bu la jox nga jël téye loolu nga fa def dafa fa leneen joxo ma lu 2500 xaw ma hmm. tanam bàjjen xaalis bi dama am lu may xaar dafa am may def lu may def lu may def na hmm. defoo ko sa xew du ma ki def ñaar fukk man am naa lu ma doy sëkk xew li may ta te sotteegul li may faj te fajoogul man doy na ma xew yow la ma la doy xew yow man xam naa ko déedéet donc toj yàq bi kan moo la doy xew man kay sama yàq dootu ma ko dajale fenn ñuy sotti yuq ba yàq moom dootu tojoti moom yow lan mooy sa problème yàq dootu tojoti ñuy sotti yuq ba bàyyi leen ma rek dama nu koy te pare ko. yow lan ngay faj ngay faj laa xamul lan la ak li ngay nëbb. ah xam ah fii de Sénégal la. Hmm. fii de luy fi nëbb lu ne dina ma sa feeñ. waaw na feeñ buy feeñ ci àll baay man doon dégg sama kaa laa jël di ko te ci digg taabal ji. Hmm. ndax góor mën naa fen jigéen mën naa fen kër gi looloo fi am kër fenkat la ñii dañuy fen ñii fen fii ñii fen fii bu góor ñi eh, buñ ñu nettalee góor ñi góor ñi dama wax jigéen ñi buñ nettalee jigéen ñi jigéen ñi wax góor ñi. yow de sa tax man sama lépp léegi na nëtt rek yow de sa cas bi ngay wax hmm? sa bi ngay wax man xam naa ko bu yàgg fenkat yi wax nañ ma ko nga dàq leen fen fexeel bu dem rond-point de xam naa sa jikko rond-point jaxaaw nga dem di fa di fa wax wax ju wax man kër gi man man man mën a fen ñëpp a mën a fen baax ñëpp a mën a fen day baax na mooy li ma la wax rek de toute façon man dinaa la rappeler waat d'accord téléphone toujours scotché à l'oreille. yaay hmm? sànq ba tey yow lay xaar. madame bëgguma problème waxal ci sam papa. waxal ci sam parce que heure bu ma jotee ak Ndeye mu woo ñu taaj ñu te li ci gën a garaaw mooy tout le temps Ndeye Ndiaye lay jëlal paar taaj ma pour di ma xas loolu dootuma ko nangu de bu yeboo nga wax ci moom bëgguma benn problème nag. foog nan lu ne nga may wax ak waxu ku nekk ba mu des waxu Ndeye ak sa papa. sa papa il est ce man sa papa waxuma ay waxam boo leen defoon ni ma leen def nga nopp kantaan nday njaay nag man mii sa ndey la ko jite lu ne def na ma ko ci kër gi lu ne wax ma ko te sama doom mën koo jur ba mu xamee ne faalewu ma ko daf ma teg ne tey jii ñamu lonkoloon def ak ñoom coalition toog di def lu bon di ma wax li bon tey jii ña ngay dëmmante ci biir kër gi bàyyi ko di ko seetaan kuy def lu bon yàggam yàggam sa kaw lay dellu effet boomerang dina am ci moom bàyyil nday njaay di ko seetaan bul ma ko tuddalati ignoré ko du ma ko bàyyi de ah parce que lim leen di def man du duma ko permettre. yiwa mu nekk nii nii nii bu ci génnul dina jot sama jikko Ndeye Ndiaye war na toog fee di ma jëw ba ma taxaw tiim ko mu naan ay jot naa sama papier de divorce ak du dëgg ak bëgg a farantu damay nekk ci internet bi di doxaan ay góor ak Ndeye Ndiaye loolu waxam la. loolu naa naqari. yaay boo weddee li ma lay woowal bu parce que bu la ko doon wax. wonte ma ci kenn man si naan pas dans les détails man affaire yi man ñàkk fay yooyu nekkuma ci li ma bëgg nga def Ndeye mooy ngay def ko ni ma ko def. xam nga nit bu toppee ci yaw di wax di wax di wax ba son c'est parce que yow yaa ko gën bu la gënoon du wax sa ay wax yaa ko gën romb ko dem sa yoon. jéemal avance nga bàyyi ko moom mu taxaw fi mu taxaw moom loolu lay gérer ci àddinaam. waxal moom sinon di ngeen ci dégg loo xamante ni. doo mës a dégg ma wax ak moom parce que man man ak moom nee naa la nous ne jouons pas la même cour de récréation man li ma tal ak li tal bokkul. moom ay commérage ta tal ak yu na dem ak moom ba xam fu muy wéy man su bëgguma damay seet lu ma jéem a avancé ma nekk ca. ak lu jëm a avancé sama njaboot multiplier ma ko par zéro def croix ci moom boo ko defee noppalu ni mu mel noonu la mel. mais eh, boo ko lijjantiwul mën naa ko gérer sama bopp. ah baax na kon yaa fi toog di gérer baax na. Hmm. ndee njaay Ndiaye bësam a ngi ci bés yi bu mu dul bokk kenn ci kaw suuf na ko jàppoo rek c'est bien. yow mi laay waxal yow mi laay waxal ngeen ak la poupée Sangalaani yow laay waxal ah, sama jëkkër amoon feebar nga jël di ko wëndeel ki digg dëkk bi fu ne nga taxaw fen fa ne jaay baal fen gis sa boo mu bàyyiwul boo mu bàyyiwul di ma fenal dinaa la def loo xamante ni ah. yow foo séenante koy fen sa dangay daw waaw maa ko wax lan la dangaa danga ko jël paar lan lan lan eh, may ma man mii mën naa tudd xaru tudd mat xaru tabaski man mii la waxal waxut ak yow de yow mën ngay attaqué Badiane wala. maa la attaqué maa tey. yow yaa njëkk fenal sa bopp. kooku man dama fenal sa bopp yow yaa njëkk sa a ma yow yaa a man mii boo ma traité fenkat ya yaay fenkat bu mag. waaw ah, baax na ndax boo fenul woon doo ñëw di ma waxaat sa problème. man sama problème su ma ko amee dama ko war a wax Ndeye Ndiaye. waaw ndax pour man ku téye sa gémmiñ. laa ko wax ah buddil ay nit nga indi leen man mi yow yow yaa fenal sa man maa ko wax seen. yow waaw waaw wala yow mi wax bu ma ko wax seen yaa yokk. man maa yokk yaa yaa ko wax fàttali. xam nga lan la man munoo maa yaa ko xadi baaba. yaa ko wax asu wóorul ko fekk ko sa jëkkër gii toog. man ëppoo ma laam bi sama yoon new yow xam nga yow nëw ci la lan la. Eh, yow doon na dee si affaire bi nëw ci la. waaw lu xew lu ñu sa yoon nekku ci. yow déglu bu yóbboo doon su foto correspondant ak sa fàtte rek képp képp ne ka sama yoon nekku ci sama yoon nekku ci yaa sa jëkkër yéen a wër di fenal seen bopp amoo leen sutura ndax yéen a njëkk a waxal seen jàngoro lan la yéen man maa amul jë ndax problème bi ba mu amee ñu wax ma seen problème maa ci nekk di ci dox. boobu ban problème la. jëkkër ji dafa ngeen boo galaas. benn waaw. ah mais yaw yow yow dimbali ñu. xam nga ne kon oh, yow sa jëkkër mu feebar kay ah, wax ko nañ ko fajire comme ku feebar. ku ma gën a jege ni yow. ba déet bëgguma jënd yow man ceeb yaa gën a seytaan ak ñëpp. waaye dama ni rek yow bu binam ngeen boo galaas. Ah. yow nga mel ni ndox. ah lu ma mel ni ndox yow yaa mel ni ndox. kii dama la yaa ngi sa jabar mënuloo leen dara. kii nga ma nga ci kii bi yow eh. eh, eh à l'appui et problème à l'appui. waaw nañ dem ba ci kanam. ah lii leer lépp dina leer. ku jur awa kooka nag aw ma. ku jur xadi. beneen amul doom. kenn ngi beneen amul doom. Ah. Sadio waaye <laughs> nag beneen amul doom. oui ma yéen xamoon na ma leen xamal bàyyi leen ay fen. waaw dama ni yéen ñëpp a yem. yow dama xam lu ma la bëggee. waaw xabar xabar jeeg dégagé mi ndeke doole yëpp ci nuyoom boobu la yem teel li jooju muy def ci la yem ndeke kii ndeke du dara nañ ko faji rek ku feebar ñu faj la man kay jël beeg damay xaar ak naa ko fi bàyyi jëg damay chantier moom kay ndeke chantier bi mooy chantier faju waaw mooy chantier faju ba tey fii feebar ñëpp lay dal yaa weer sa bopp feebar ñëpp lay dal yaa weer sa bopp yow man amoon ma man sañoo wax ak man xaw ma la may wax ak yow man damaa pare ci yow maa njëkk a pare man damaa pare ci sa bopp mooy tuut loolu ma moytu loolu ma def ko soo ma may ba amul ba amul kaso de laaju ma la soo ma may tuul déglu déglu boo moytu toogal dama ne boo moytuul dama lay rey man da ngay dem kaso gisoo lii xaw ma ci dara nañ ma bañ a moytu li ma daan def day génnaat lan ngay defaat wàcc rek jàpp buddi rek ñu ñuus la ba nga bëgg a ma ñuusaat la ba ngay bëgg a tey gisal na gis nga mbir mi day jeex dégg nga li yow yow dina may ngay ñuus la yaa ngi nii ko ma ko sax waay yow yow yaa réew ma gën a réew yow yaay sama mag yaa ma gën a réew yaa nga tax sa jabar naa dangaa réew ko sa jabar ma wax rek neex na la ma bàyyi ma laal ma laal ma laal ma seet eh. laal ma seet ko sa la xool eh, eh. laal ma seet laal ma rek lii mënu ma ko gëm quoi. nan la papa. lii mënu ko gëm c'est pas possible. booy la booy boobu dafa ma def benn révélation bu mu xaw a jaax. concernant sama fille boobu Kumba. d'après ses dires laa wax d'après ses ci li ma wax nee na Kumba dafa ëmboon bay waaj a wasin yàq biir bi. bi mu génnee hôpital yàggul mu tegaat ci leneen ni ma Kumba li tax mu ñëwaat fii yëpp xam nga lan la suñu héritage bi mu dégg la moo tax mu toppoon ma parce que xam nga nga ko fee gis mu jékki-jékki elle refait surface donc yaa angi si roche mais mënu ma ko gëm quoi je peux pas croire à ça mënu ma ko gëm sérieusement booy bi dafa mën a fen nag te menteur waaw mais là sama xawal daal xaw na def nii quoi neen non non c'est pas possible loolu mënul nekk nekk quand même nekk. papa man xaw ma guddaa la xaw ma man mosuma am sax ak moom wax mais tamit benn instant boo toogee xalaat li mu wax jar na bàyyi xel de parce que boo xalaatee li fi xew yëpp si ginnaaw xaw na méngóog lim la wax de. yow papa ki jékki-jékkiw fi ànd ak yow ba mu yàgg mu dem bàyyi la fi diggante bi yëpp da ngaa xam lan moo ci mën a xew. no loolu mënuma ko gëm xam nga tax mënuma ko gëm booy bi xol laal du ma ko laalee sax mënuma nii booy bi mënu ëmb laa wax bay wax naan da koy yàq wala da ko yóbbu hôpital loolu mënut a nekk booy bi ko laal sax su ma ko bëggee jege mu rejeté ma non loolu mënut a nekk mënuma ko gëm waaye non c'est pas possible mënul nekk waaw nekk. dañuy waxtaan. parce que am na loo xam ne boo ko dékkee nopp ya koy déglu war a wér wax bu dofee nopp ya koy déglu war a wér parce que nit ku la topp naan la takk ma ba mu jaral ko mu ne day yëkkati xaalis jox la ko pour nga takk ko jar na xoolaat moom déjà est que mës nga gëstu ci moom xaalis bi ñu wax naan daf ko am est-ce que dëgg la. <coughs> en tout cas daal moom elle m'a dit que son bon transporteur la woon. c'est vrai que mën naa ko bon mënuma ko vérifier en fait waaw mënuma ko vérifier nee na ma papaam transporteur la woon am na xaalis effectivement génne na xaalis ma moom daf sama dot affaire demee noonu mais jusqu'à présent en fait sax bi moom mooy loolu waaw daal man man daal bon daal sama xel day jiix jaaxa quoi vraiment euh, ça m'aurait mu def ma lii man dina ma jaaxal trop amoo ci benn preuve non j'ai mais je vais des enquêtes leen danaa la xam na ni que ni yow yaa ngi war a jot sa xaalis xam nga xam na lool donc nag moom yor na walla yorul xaw ma te ku ànd ak yow ba mu neex ko mu bala fi dem ci leneen jékki-jékki dellusiwaat ci yow di la sonal pour nga tax ko mu yëkkati xaalis jox la papa teggi sa tànk gëstul bu baax parce que man de sama xel tey na ci. mais yow Khady lan nga may conseil par rapport a ça parce que man vraiment euh, xamatuma sax lu may wax quoi je suis je suis plus dans ma tête parce que depuis ce jour laa depuis une semaine maa ngi ko denc waxuma ko kenn yow laa ko wax. Ah, mooy li ma la wax rek man bu ma sañoon da ngay def nànk nga bàyyi sax au moins ba koor gi passé bu fekkente ni li mu lay wax dëgg la su boobaa looy def nga def ko bu dul dëgg nag ah man de loolu laa ci xalaat mooy sama gis-gis. waaw d'accord. ko xam nga lii moo tax man may bëgg di waxtaan a yow parce que kër gi yaa fi nit waaw su fekkoon ne leneen la da nga may wax dëgg waaw mais comme que nii la demee man dinaa ko wax benn su affaire su ma bousculé man ko nañu bàyyi ba koor gi passé su fekkee nag day insister ma xam ne kii yaa a problème y a quelque chose d'accord mais maa lay remercier maa lay remercier bu baax waaw parce que laa nag xoola lii nag la doom di jëriñ papaam te vraiment yow tu dans cette maison là. c'est normal sama ok merci Khady <laughs> kontaan trop ci yow ah. maa yegg ci hmm. d'accord man man moo yow yaay sama nu nu nu ma aw bu baax Voilà, ok merci bien d'accord je ah, yow lan la ngay sukk seen sukk saytaane yi yow man lan est-ce que yow est-ce que yow mën naa lan laa mën a ñaan nga ba ma daa lay laaj ah yow baaxu sa yaay baaxul liib-liib fu sa sëy doom di sëy ñaari fan ñett nga ni daret sa goro mi ngi fekk gën a bon xam nga sama doom tege na ma ne jàkkaarloog man vipère yow yow yow yow yow lan la ba leen ma bàyyi ma man banaa leen ba leen ma ay dimbali ma waay nu seen nu seen papa ci la nga baal ma rek xam ne peut-être juum rek waaye dama ni yow man baalu àq ki dama cee sonn yéen daal dem leen ma dem rek moo gën ci yen waaw loolu la yow ma bàyyi la amul problème leen bàyyi leen maag sama bopp rek yàllaa ngi fi loolu man eh, seen yooyu yàgg naa ko baan baal ma àq nga jëndee ko goro waaw jëndal gros rek. non c'est ma. beneen yoon dootuma bi ngeen xamee lii waru leen waru leen woon commencé di def seen dangeen da ngeen a waroon a régler n'est-ce eh, yow laay waxal eh yow laay waxal Fatou Kiné teel sa xaalis a ngi nii téye ko doo ñëw jël sa xaalis ah. yàlla ba sa xaalis kenn ko sànni eh dof yegg fop leen eh, di def seen yi naan baal ma ah baal naa la waaye bu ci dellu. ah tey nag bàjjen suñu Aliou mu bu ñaaw bii moo ñu seet si moom na dafa dëkk ñun ci yu baax. Mhm. sa def na fa lu baax lu rëy. Mhm. def na fa lu rëy rëy rëy. Mhm. nag moo ñu indi suñu añu kër. ndax xam na ne añ jamono ji ah yombul de. as dama koy de. ubbil añ bi. eh eh eh, eh, eh lii du dëgg. allo lii nga def. dañuy fo. waaye li nga def nii lan la ya dañuy fo dong. waa man gisuma ceeb de. kenn du ko mën a gis asu ndax xamul lu tax dafa def ay xeeti ginaar bi baax macha allah def xeetu yàpp mu baax a baax jigo ba liggéey li ko bàcc fii. et eh, li yàpp xar la yàpp nag def léppam. yàpp xar la ak yàpp la. ay wa cooy li. allo traiteur. ay traiteur baa ngi nii dama ni. keroog sama mariage bi dangaa ñëw lépp luy jus da nga indi. dëgg la ataay da nga koo indi. dëgg neexul lépp loo xam luy neex neex la wala luy baax baax fruit yeeg da ko indi. Eh, may ma déglu ma yow ñam nga wasu Aliou. Hmm, dama bàyyi yow. ah wasu Aliou de tukkal àdduna. asuma fi ne nii man sama wax bari di laa mun na fi ma ceeb bi laa gis ceeb a lekk. ceeb bi laa bëgg eh, lekk léegi. Eh, da ngay def da ngay def nànk te def nànk bàjjan sa lépp da nga koo yàqam te parax parax la léegi xam nga nu ñuy def hmm. danga may jox sa numéro ba pare ma bëgg nga wax ma nag ci yan ak yan ngay yëngu. Mhm. ndax ñun kër gi des fois ñu soxla ay affaire mhm. am naa ay xarit yoo xam ne tamit dañuy bëgg ñu leen defaral ay affaire di leen ko livrer seen kër. léegi nag damaa bëgg nga jox ma numéro ma jox ma ay monsieur nay nga am. Euh, ñun nag moom Aliou moom ñun ñi ngi dëkk Dakar mais ku ñu soxla rek boo ñu contacter dinañ la woo. Mhm. ba ci Thiès Thiès ah, partout dans le monde. ah Dakar lañ dëkk mais on est partout dans le monde boo ñu soxla dañuy togg mariage dañuy togg ngénte dañuy togg anniversaire réception même boo toogee sa kër namu ceeb wala payla wala cere wala lu mu munti doon. ñu livrer la ko. was bi boo ko soxlaa mi ngi fi. tey boo ko soxlaa ma nga fa jinjeer sax boo ko soxlaa boo ñu commandé ñu defaral la ko bàyyi li ngay wax lépp dañ koy defar sa jëkkër sax bu demee nga bëgg am loo bëgg a def sax suñu ñëw ba saggal la deresel la yow wax ñu fii lañ fii lañ lay defaral ñu ñëw deresel sa jëkkër bu jógee weekend bu waree ñëw noo koy defar dañ lay deresel lépp monsieur yaa ngi fi poulet pané yaa ngi fi lépp a ngi fi. yow loolu ngay lépp la def kay. ah kaldu yeeg. ak ay kaldu. kaldu meen. ceebu jën ceebu jën loo soxla rek cere lépp. ak cere ah. mbaxal waaw daxin. mbaxal yooyu yëpp dañ koy eh, ni mi ba da ngeen def mbaxalu jën. ay waay dama koo bëgg sama xol. ceebu yàpp ñee benn fi. Eh. ma ngi njëkk ña ma ngi njëkk ak bu weex. kontaan naa ci yow ma ngi njëkk ña. Aliou jox ma numéro numéro téléphone bi as ko. secrétaire baa ngi ni moo yor wàllu internet ak numéro. jox ma numéro téléphone 78. waaw. 141. waaw. 38. waaw 94. jëlal beneen numéro bi. ah yow mii ñaw ñaari numéro ngeen yor. Mhm. waaw 77. waaw 966. waaw 95. waaw 30. <laughs> ngi fépp nag. wuy ma Snapchat TikTok. Instagram Instagram YouTube. fépp daal lépp nga fa bu ñu duggee daal bu ñu. waaw mooy tàppe a traiteur Aliou nga gis lépp. lépp njaay euh, Ndiaye dafa ëmb. Fatou Kiné dafa ëmb damay Dakar na leer ne ngéntey Ndeye Ndiaye ak Fatou Kiné yaa koy togg. moo togg lépp asuma la si leneen loo fàtte. loolu la. fi Dakar. ah men menn confit mango boo ko soxlaa dañ la koy eh, livré waxoo de man gawuma la man gawuma la crevette gambas soo bëggee ñu soteel la ko def ci lajum sauté Aliou leneen loo fi waxaat duma la ko baal yàqamti naa ñam ceeb dugul ma dimbali na gaaw ay ba na nank de nank de xam naa sa jikko ci yàpp waa bëgg yàpp waaw bëgg yàpp yow lala yow xanaa balaa ngaa laal poñ ñam ceeb indil ba maanaam yóbbu ko fa bi bàjjan eh fii ay bàyyi ma tam dañuy am nga naan ay nit def toog soxla néew ci dama yàpp la bàjjan yàpp bi jafe kudd da ngay xëcc mu topp la